Salut les amis des Sport TV, merci encore Gaël de la confiance en nous, merci de vous du like, merci de vous des abonnés, merci également Gaël de baisser les commentaires. Hein. En plaisir de voler chaque fois de partager les informations inbox sénégalais fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal. Roukhoukhar di Gorgoukhar di ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp nga wér ak jàmm ñu ci kaso yi ngeen aussi erreur judiciaire gi ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëdd àdduna suñu borom xaar leen fi daw si gars yi ñu en avance ensemble dans la magie pays sportifs et le Baba Show l'actualité en compte gars ak ñu fassé waxtaan performance exceptionnelle de Youssouf Sabaly Sabaly Liverpool mi gagné Karabak, nga mais également la colère de Sadio Mané et de Ronaldo lan moo mais aussi Habib Diallo passeur décisif lépp ñu fassé ko wasaare andi ci ak yéen encore une fois Gna bu ñu wax ngeen jëli électeurs. seen carte électeur jàmbaar dafa témboo ak US FC Teungueth dóor 2 bis à 1 Dakar Sonakos cœur Sonacos dóor ko ñii di AS 4 bis 1 Casa Sport Linguère dóor ko ñii di Génération Stade bu Tembo, thèmes jaraaf gi également dañoo Tembo, classement mi ngi nii Teungueth FC Monaco ci kaw 25 points top ci jaraaf 24 moog AS Pikine US Gorée nekk e position ñi nga xam ne donc ñi di génération foot pour nga gis leen foog nga dem euh, ba ci 11e euh, position bi mën leen fa dali di euh, ah, donc ci moy classement bi pendant ce du côté de Santiago Bernabeu, gars yi ci bi commencé nañu jaay li nga xam ne donc ay échappe yu kii di Kylian Mbappé bi nga xam ne gars yi jàpp nañ ne donc à quatre-vingt-dix pour cent ñëw du côté de la Casa Blanca et it loolu lay daal nuru jëm nag ci ki xam ne donc Kylian jii nii dañ ko daal di génne ah dañ ko teel a génne sax ci li nga xam mooy match nag di jur ko moom lu rëy rëy rëy kii nag di Luis Enrique ne saa waay man entraîneur la euh, joueur bu ma gisee dama koy war génne dama koy war a soo gars foog ñu commencé ko aussi di xam ne Mbappé du chaque jour la fiy nek ah dañoo préparer avant pendant et après Mbappé le dal la daal di wax mais dal day wadjal demu Kylian Mbappé eh, ki nga xamné aussi na gars yi moom donc kii di Lautaro Martinez gaay donc l'un des meilleurs buteurs ou le meilleur buteur même de la Série A 23 matchs 22 buts eh, il est en forme le joueur argentin exceptionnel Lautaro Martinez nga xam ne instant Inter dañ ko prolonger même am club yi eh, top même fekké fekkee prolongation mo gën a Virgil Virgil van Dijk ah nous avons encore le héros aujourd'hui donc de, euh, des de Liverpool, de Dougal contre Chelsea final euh, donc Carabao Cup

Cavani qui était là présent dans le 11 de ki nga xam ne donc Jürgen Klopp Virgil van Dijk nag bi mooy nekk troisième fois mu jël homme du match ci li nga xam mooy donc final ah, ci final ak Liverpool bi mooy troisième fois ñu daal di tabbu mu nek homme de match euh, homme du match de la finale mu bàyyi nak encore une fois gars yi ngeen xool but bi ñu daal di dellu ci Mais le gars, Gennaro Virgil on va parler de gars qui envoie donc Youssouf Sapali Sabali. Mais encore, on va voir 5 mégas. Quelle performance, quelle performance de Youssouf Sapali Sabali. Exceptionnel, performant. Youssouf Sapali Sabali, gars. il m'en l'un des meilleurs hommes hein, donc, de Pellegrini ici, euh, Donc, 90 millions joués, donc 88 balles touchées. En Ligue 1, donc 80% de passes réussies. a 12, 10 duels gagnés sur 12, 4 interceptions, 2 dégagements, 3 dribbles réussis. Moi, au plus, on a fait dribble. Il y a de 3 sur, 7 euh, sur 3. Taïmou, je joue au Ligue 1, donc, arrière côté latéral gauche mu bàyyi leen ngay également la performance énorme phénoménale et énorme de Youssouf Sampaly Sarr jëm nag ci match bi amoon diggante al Ittifaq ak ñi xam donc al Nasr al Nasr moo daal di euh, dóoran ah, 3 buts à 2 mais ki nga nag mooy donc Habib Diallo def na passe décisive même bu dugalul tey passe décisive peut-être dina ko yokk confiance Habib Diallo avec son club moo bàyyi leen ngeen xool passe bi laataa ñu dellu si résultat bi. mais match boo xam ne également Sadio Mané dafa meroon ci mi-temps bi ndax jàpp ne rek gars yi dañoo waroon a gën a dugal passe ko bal nag di Ronaldo ne ko saay garaawul bàyyi leen bu ñu jógee mi ñu daal di dugal Ronaldo mi aussi il était hyper énervé ndax moom gars yi match ba mu jeex aussi gars yi topp ko naan ko Messi Messi mu leen di kaañu def ay gestes yoo xam ne dafa doy waar ba bàyyi leen gars yi ngeen xool ko ñu daal di continuer bien sûr. également des leen wax petit dem ci ah, Baba Show abonné mais un également vidéo bi nga xam ne eh, jëm ci Fadiga ak Aliou est-ce que Fadiga dafa mere Aliou Cissé ou non Noah Fadiga en tout cas une publication bu mu def loolu yëpp ñu fas yéene ko côté boobu nag euh, ngeen jox ci toujours sur Baba Show l'actualité en contenu et sur eSport TV aussi wéy leen gars yi di like di abonnés abonné leen gars yi su baaxee si yéen la gars Free Sénégal jaa